prévention inondation. très bien Ndeye Diagne Ndao. alors ma lay nuyu bu baax Mouhamed di nuyu Fatou Abdou di nuyu tamit euh, suñu gan am plaisir dalalaat ko fii suñu plateau alors tudd nañ ci xaalis bu bare bëri ci inondation yi yow nga nekkoon député assemblée nationale te nan nga gisee euh, taxawaayu askan wi taxawaayu député yooyu nga xamante ne ni tey jii askan wi moo leen teg ci assemblée nationale. bon xam nga euh, yu mbir yu mel nii nga xamante ne dafa engage ay kopparu état député déjà. maanaam tey la majorité parlementaire war nañu déjà war a mën a wax fan la xaalis boobu toll lan moo si dugg ak lan lañ si exécuté parce que xaalis bu ñuy def si programme dañ koy dugal si budget te budget yi suñ ko voté ba pare day am ay loi de règlement yi nga xamante ne dañuy wax taux d' exécution bi lan lañ si exécuté ak lan lañ si exécuté wul moo tax tey balaa ngay wax mission d' information ñoom dañ ñu war a informer d' abord ñaata moo dugg ak ñaata lañ si exécuté loolu mooy d' abord la gestion comptable su wax mbirum xaalis bi fu mu dugg fu mu génn en dehors de sa il la gestion technique parce que lan moo tax anticiper wu ñu woon si lii yëpp am parce que su dee da nga régler benn problème ba pare problème bi déporté wu waat feneen ça veut dire que soo defee diagnostic ba trouver solution si benn problème da nga waroon anticiper pour que mu bañ a feeñ feneen te xam ngeen ne croissance urbaine parce que tey sooy xool réew yu mel ni Sénégal nit ñi dañuy dëkk di dëkk di dëkk. nan la ñu def pour plan d'aménagement yi mu baax. lan la ñu def pour étude d' impact environnemental yi nga xamante ne ne environnemental yi nga xamante ne war na mën a tax ñu xam ndax fii war nañ fii euh, def lotissement ou pas lan la ñu def pour kar nit ñi bañu ñu bañ a dëkk si milieu yoo xamante ne ne euh, kii bi dafa war a am mbënd bi dafa war a am donc je pense que ne loolu foofu la ñu doon xaar euh, assemblée mission d' information à la place du d'une commission d' enquête parlementaire lan moo waral ñu choisir ñoom out euh, information alors que coowal euh, xaalis bi ñëpp dégg nañ ko est ce que du fuite euh, de responsabilité de l' assemblée nationale voilà. waaw xam nga wax naa ko nee naa mission d' information moom du lu ñuy régle mbir mi parce que lan mooy préoccupation population yi actuellement préoccupation population yi mooy jël nañu koppar bu bëri wala boog annoncé nañ ne dinañ jël koppar bu bëri dugal ko ci mbënd mi teewul ba léegi ñu ngi gis ne mbënd maa ngi fi xaalis boobu su dee génne nañ ko ñaata lañu fi génne fan lañ ko def nan lañ ko utiliser ñan yan responsabilité moo engagé wu ba tey ñu mën a continuer di dund presque la même chose bien que am na côté yoo xamante ne réglé nañ ko mais encore une fois dañu déporté waat encore le problème ailleurs loolu commission d'enquête parlementaire moo si war commission d'information lu loi bi wax muy article 49 bi leeral la war a indi pour député yi ci seeni activité maanaam du pour sax pour sénégalais yi en tant que tel c'est vrai que député mooy représentant pour mais pour député yi ñu xam mais soo gisee ñoom nuñ ko bëgg a defee dem nañ ba ne dañuy jël sa rapport dem jébbal ko président de la république c'est extrêmement grave où se trouve la séparation des pouvoirs président de la république su bëggee xam lu xew si mbirum mbënn bi am na ay service de contrôle yu mën a yóbbu ñu saytu xool defar ko rapport indi ko mais assemblée nationale mënul liggéeyal président de la république donc loi bi si boppam lu mu wax sax ne pour député yi la ñoom dem nañ si seen i bureau fexe créer loo xamante ne dina fexe ba ñu mun a def rapport yóbbu ko loolu mooy indi problème bi li nga wax ni assemblée nationale mënul liggéeyal euh, président de la république ci jamono joo xamante ne ñëpp xam nañ ni majorité moo am assemblée de assemblée nationale. mënul liggéeyal président de la république loolu nga wax mais kon est-ce que du loolu moo ànd ñu dem vers euh, vers cette euh, mission d'information euh, plutôt ko ñu dem ci commission d'enquête parlementaire puisque ñi fa nekk ci assemblée ñëpp c'est une majorité. waaw xam nga xam nga mission de loolu laa la wax ne ma la mission d'information bi waruñu def rapport di ko jox président de la république. justement majorité bi foofu lan lan moo xew. parce que maa ngi koy wax ni la est-ce que du fuite de responsabilité. Mhm. parce que dañuy bañ a jàkkaarloog dëgg gi te bu ñu demee ci dëgg gi mooy tey ji dina am leneen loo xam ne ni day défavoriser euh, l'entourage du président de la République. waaw finalement sax dañ koy tuddee sabotage. gis nga assemblée national dañu am ay prérogatives yu nekk ci constitution bi. les députés sont élus au suffrage universel direct dañ leen wax ne ne ñëw leen ñu fal leen ngeen toog contrôler l'action gouvernementale voter ay lois. taxawal askan bi ñu ne président yow ñu ngi lay ñu ngi la fal pour nga nekk chef de l'exécutif nga doxal ku su dafa am rôle rôle yi bokkul bu ñu jaxase rôle yi li tax ma wax ne ne dafay nuru sabotage parce que rôle bu assemblée war a jouer teewal askan bi taxawal askan bi malheureusement dañu jël mbir yi tourné ko noo xamante ne finalement tu as l'impression que biir assemblée nationale président de la république si boppam mu xam nga dama lay jox benn exemple bu tey cour des comptes mënul dugg assemblée nationale. IGE mënul dugg assemblée nationale te pourtant ay milliards nga fa. xamul li parce que séparation des pouvoirs moo tax. nangu wuñu loo xamante ne dafa wékku ci président de la république. mu ñëw di dugg biir assemblée nationale parce que beneen pouvoir la ñaari pouvoir yi bokkul. waaw mën nga xalaat député yi liggéey. jël rapport di ko jébbal président de la république. d' accord mais loolu c' est une violation de la loi. d' accord Fatou Ndiaye. donc Mouhamed maa ngi lay nuyu bu baax. am mbégte daral fii honorable député. Mhm. Thierno Bocoum nuyu Ndeye Dimet. Euh, euh, parti démocratique bu Sénégal seen groupe parlementaire liberté démocratie ñoom dañu proposer une session extraordinaire yow nga proposer une enquête parlementaire nan la ñu mën a jàppee différence boobu ak ban moo ci gën a mën a gaaw pour que sénégalais yi xam 765 milliards yi fan la dugg. waaw non xam nga session c'est c'est différent c'est-à-dire que session par euh, extraordinaire parce que session ordinaire bi maanaam benn session mooy am session bi dafa jeex dafa war a ibbi octobre comme problème am na dañuy war nañu mën a effectivement créer une session session extraordinaire woo député yi ñu ñëw ñu faram fàccee xool mbir yi nan la demee ak fa lay mujjee loolu mooy session euh, extraordinaire maanaam dañuy ibbiwaat assemblée nationale pour que problème bi ñu teg ko sur la table régler ko def audition yu ñu war et tout ça mais euh, commission d'enquête parlementaire tey jii dafay permettre li jëm si lépp loo xamante ne problème la te nit ñi ñu ngi koy mu ngi jiixi jaaxa seen bopp ñu mën ko euh, xool lëncal ko xool ko ba mu leer nañ ñu mën maintenant publier ko su leen neexee parce que loolu moo si gën a am solo ñu publier ko nit ñi mën a xam ne lii at lii ak lii moo si am su jaree sax justice jël si wàll justice jël si wàll. mais tey mission d'information bu ñu wax encore une fois euh, ñu bëgg a jël rapport euh, rapport yi ñu koy tuddee rapport d'information rapport d'information c'est destiné aux députés. mais nga jël rapport d'information jébbal ko président de la république da ngay violer complètement le principe de la séparation des pouvoirs parce que dafa mel ni euh, assemblée nationale léegi dafay liggéey directement président de la république alors que le président de la république a ses propres services. alors est-ce que bu ñu bu ñu déggee loolu dafay mel ne dañu bëgg a camoufler mbir mi. parce que yëkkati nañu ko il faut assemblée nationale dugal ci loxoom mais six semaines euh, bu fekkee moom la ñuy xaar pour jébbal rapport bi le président de la république euh, six semaines yooyu liggéey bi ñu ci def yëpp ñoom du am benn njeexital en quelque sorte. xam nga xam nga déjà dafa am benn communiqué bu assemblée def pour pour rek wax na jour bu ñu war a daje ñoom pour def mission d'information communiqué boobu soo ko liiree tagg nañu plan décennal plan décennal bi plan bu structuré la plan bu baax la félicité nañu président de la république. wax na ne euh, taxawaayam ak plan Orsec bi ak nu mu taxawee si mbir mi. manaam ci as l'impression que communiqué yi génn pour assemblée nationale moo communique parti Benno Bokk Yaakaar c'est la même chose. alors que askan bi fu ñuy xaar même su dee majorité dafa am. loolu lu am la mais majorité mënul tere liggéey bi war askan bi jox la ko nga def ko ba mu mat sëkk parce que foofu la la askan bi di xaar malheureusement gis nañu tey on a l'impression ku ne day bëgg a joxe gage gage wane ne man yow laa fi teewal wala ñun ñoo ànd ñun ñoo far mais fan la ñuy fàtte askan bi c'est des milliards la ñuy dugal assemblée nationale mais est-ce que est-ce que opposition bi également ni ñuy xeexee yenn yenn yenn vote yu ñuy def comme parrainage bi li mu leen jaraloon ak yenn yoo xamante ne peut-être que dafay laal li nga xam ne mooy politique ou élection est-ce que mbir mi yegg na leen foofu pour que au moins ñu xeex ko ba Sénégal yëpp xam ne ñu ngi taxaw au chevet des populations sinistrées waaw non pour ce qui est des des populations sinistrées je pense que am na ñu bëri ñoo xamante ne dem nañ fa. Euh, am nañu médiatisé am nañu médiatisé opposition bi du Pastef du gëm sa bopp du également euh, li nga xamante ne moom mooy euh, parti démocratique bu Sénégal ñett ñooñu lañ gisagum. sur non am nañu am nañu médiatisé wul aussi. Hmm. par exemple man am na ñu ma ñu ma seeti ñoo xamante ne ñoo dëkk et cetera. Hmm. mais li am solo li am solo mooy. Hmm. ñu xam ne ne mbirum inondation état boo koy gérer. du homme politique du opposition du keneen. état moo war a am volonté politique pour gérer mbirum inondation mm-hmm. moo tax dañu jàpp na ne euh, su dee volonté boobu yëkkati nañ ko wax ne sept cent cinquante euh, sept cent soixante six milliards dinañ ko def ci plan décennal mm-hmm. damay dégg kenn ci député yi yu majorité bi mu ne tey yaa moins deux cent milliards yu ñu ci def mais c'est mm-hmm. parce que dañ ko basé ci loi de règlement yi ça veut dire que y pas une volonté politique réelle su dee da ngaa chiffré dara c'est vrai que budget prévision la c'est vrai que da def ay arbitrage c'est vrai que da ngay def une hiérarchisation des priorités mais inondation yi lu muy coûter population yi coûter ko trésor public dafa rëy parce que imaginez su dee chaque année nga génne dix milliards dugal ko ci inondation alors que mën nga defar luy mën a tax nga nga def drainage euh, euh, ndox mi mu dem mën nga def luy tax ba nit ñi bañ dëkk foo xamante ne dafa am ndox parce que ndox ñaar rek lay demee benn mooy ruissellement mu daw dem dugg fenn tegu fenn benn mooy infiltration mhm. su dee ruissellement bi bàyyi woo ko mu ruisselé mhm. nga nga nga créer def ay travaux yoo xam c'est des travaux privés wala mhm. publics muy dévier ndox mi wala mu am gravats yoo xamante ne day day empêcher infiltration bi wala nga dem dëkk foo xamante ne ne ndox mi du mën a dugg mais mën nga pomper fii ba suba. alors honorable te pompe boobu xaalis la. soo gisee même ku jëkk politique yi euh, dañuy gis ne bi ñu ne peut-être dañuy voter parrainage dégg nañu leen alors que demain la ñu a def bureau bi bureau bi opposition bi ñi ngi ci am trois personnes euh, trois personnes yi xam nañu ko ba pare puisque Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké la Mamadou Lamine Diallo ak euh, parti démocratique bu Sénégal ñi leen ki leen waaw muy am Sow Sarr je pense Euh, opposition mais ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci nguur gi ñi leen fay représenté non seulement xamaguñu ko naka lay demee xamaguñu ko est-ce que opposition bi def nañu seen liggéey bi nga xam ne moom la ñu waroon def dans cette affaire. non man jàpp naa ne opposition mënu si lu bëri. Mari Sow Ndiaye laa bëggoon wax. waaw xam nga xam nga euh, assemblée nationale malheureusement d'ailleurs moo tax si mbirum statut de l'opposition. parce que y a le statut y a de l'opposition il y a le statut du chef de l'opposition c'est deux choses si statut de l'opposition en plus jox doole opposition ci biir assemblée nationale. parce que malheureusement yàlla a le dictat de la majorité. tey loo si ti wax député yu nekk si opposition yu bëri ñu ngi góorgóorlu. ñu ngi jéem a ñefe lu ñu mën. mais malheureusement il y une majorité écrasante boo xamante ne ne li muy bëgg a wëyal rek lay wëyal. te malheureusement majorité boobu surtout bii nii lu ñu fi gën a gis. mooy seen activité yëpp dafay correspondre ak activité exécutive bi maanaam tey mënoo def différence entre les activités de l'Assemblée nationale et les activités du président de la République ça veut dire que c'est géré dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar et c'est ça qui est ci wàllu inondation yi euh, nan nga gis communication bi nga xamante ne ni wax nañ ko ci sept cent cinquante et quelques milliards ñu ñëw ba problème am ñu rétropédaler wax ni euh, prévision la est-ce que foofu tamit quelque part nelawuñu nelawuñu askan wi rawatina tamit yeneen ñu jéemu ñu vérifier est-ce que euh, vraiment xaalis bi ñu wax dugg na ci inondation yi bon xam nga xam nga moo tax toujours damay wax ne nañu def attention aux effets d'annonce mm-hmm. président joxe na lii génn na mille milliards génn loolu il faut que sénégalais ñu xam ne ne c'est des prévisions mm-hmm. te da ngay recouvrer mm-hmm. cest à que tey euh, budget bi teg nga ko am pas en prévision nee nga lii laay am si biir année bi nag ngay recouvrer en sa emprunt yu nga def et cetera loolu ngay dajale pour alimenter ce budget mën nga ko am comme mën nga ko bañ a am hmm. mën nga tamit dem ba si biir nga def ay arbitrage yuy war a mun a tax loo waroon def fële nga def ko fii et cetera hmm. wala nga privilégié fii bàyyi fële hmm. mais encore une fois ba président Macky Sall ñëwee en 2012 dañu waxoon ne priorité la si mbirum inondation yi c'est une priorité et tu as parfaitement raison ba ñu annoncé montant boobu tey man suñu ma waxee parce que dégg naa kenn mu ne ba ñu defee xoolee Loire c'est cent milliards ñu si dugal ce n'est même pas la moitié donc il y problème de volonté politique loolu mooy mbir mi moo tax tey bu mu jaaxal kenn situation bi ñi ñi Sénégal yi di dund muy jafe-jafe yu méttee métti yu tar mhm. bu mu jaaxal kenn mu am mu am mhm. parce que li ñu waroon def mooy ñu waroon jël dugal ko foofu. dugal ko pour que loolu bañ a am. Mhm. mooy yooyu defuñu ko conséquence bi. mooy naka naka naka nga jàngatee ci njiitu réew mi ba muy laajaat réew mi mu ne euh, à l' espace de de de quatre ans na géré na euh, andi nañu saafara ci mbirum inondation yi. Euh, voilà ci opposition bi am nañu ko tontu woon xëy na dafa dafa tawul peut être la la la mu la mu daan taw mais tey jii nii li nga wax muy effet d' annonce yu mel noonu est ce askan wi itam jarul jaratul ñu leen di xel ci seen i ay kaddu ci seen ay wax yéen woy politique yi ci xaalis. xaalis bi ngeen di wax ne dugal ngeen ci te boobu léegi ñuy wéy di dund jafe-jafe yi. waaw xam nga soo waxee résoudre nga euh, problème inondation mm-hmm. est-ce que ren inondation am na wala amul. Mm-hmm. inondation am na. Mm-hmm. donc sa wax tuxu na. quand li am la réalité mooy am na ñu ñuy dund si ay jafe-jafe. à cause des inondations. ji plan euh, dañ ko war a soo waxee ne ne dama bëgg. am na lu ma hérité parce que nag régime bu nee am na lu muy hérité. absolument foog aussi loolu ñu wax ko. Mm-hmm. nga ne problème bi lii la léegi na trouvé naa solution bi. Mm-hmm. pour ñu mën a régler fii dootul taat. mais li gën a lu élémentaire. Mm-hmm. mooy problème li li am ba problème boobu am ba nga naan da ngay trouver solution nga fexe ba mu bañ am feneen. absolument. parce que su amee feneen ça veut dire que tu transposes le problème. et li nga injecté woon fii di nga ko injecté waat encore fële. alors que tu n'en avais pas besoin. ji nga plan décennal bi ils avaient prévu cinq virgule sept milliards pour ay études géologiques. mais loolu waroon na mun a tax ñu anticiper si lii. ils avaient prévu prévu près de quatre cent quatre vingt milliards. bu jëm si mbirum relogement ak requalification quartier yi. mais am na ñu bëri ñoo xam te fu ñu dëkk mënatuñ fa dëkk. dañ leen war a reloger. loolu mooy dëgg. parce que loo pompe pompe pompe ndox ma dafay des. Seydou beneen pompe Sall d'une manière générale ñu jël benn ponk muy inondation est-ce que xel euh, nangu na tey ñu teg ab programme décennal ñu dem bay waaj egg peut-être deux ans président di door a demander ñu auditer liggéey bi. waaw xam nga auditer moom xool saytu dafa war a doon en permanence parce que alalu askan fu ñu koy dugal fu ne. Hmm. dafa war a doon en permanence ñu xool ko mais nag wax dëgg yàlla parfois am na discours yoo xamante ne président da koy def nekkul lu dul pour jéem a satisfaire mm-hmm. à la demande sociale c'est comme rek nga dem Kër Massa ñu wax la waxu inondation nga ne naa leen defar département c'est comme si ñu ne la euh, comment t'appelles-tu nga ne je mesure un mètre quatre-vingts loolu mooy problème bi mm-hmm. mais parce que demande la foofu ñoom bëgg nañ ko. mu divertir leen si loolu. te ñii ñu ngi naan nañu leeral mu ne waaw nañu leeral. mais moi je parle de volonté politique. parce que encore une fois su dee lu ñu wax ne moom lañ dugal si inondation yi te seen plan décennal bi mu prévoir chiffre bu tollu 766 milliards en huit ans dugaluñu deux 200 milliards. mais su inondation amee warul jaaxal kenn. tout parce que plan boobu yaa ngi un aspect technique. Mm-hmm. bi nga xamante ne nee na lii ak lii lii war nañ ko def pour ah, inondation bi taxaw. parce que bu ñuy wax demande sociale également wax demande du moment. maanaam jamono ji nga xamante ne askan wi fa dëkk loolu la ñu bëgg. Mm-hmm. déplacé wu na dem na Kër ma Massar euh, ci communication bi bëri na loo xam ne wax nañ ko ci mais est-ce que loolu nga doon xaar mu annoncé départementalisation de Kër Massar euh, que moom mooy indi solution aux inondations. yàlla ak la. ça n'a rien à voir du question de territoire ter, ter, du question de de de d'espace de, mm. parce qu'en réalité le euh, Kër masar était dans un département déjà mm. su dee département bu ne def nga li war a war lu war si moom mm. zone yu inondé si biir département lañ nekk créer mm. département bu bees xanaa créé xanaa kon département yu bees yi la ñuy gën a bàyyi xel que département yu yàgg yi mm. parce que Kër masar mu ngi woon si département déjà mm-hmm. fu ñuy mbënd mbënd fu mu am zone bu mu am mu ngi woon aussi si biir département je pense que loolu lool lañuy wax diversion wala sax nga wax ko contre fa mel ni nit ñi ñu ngi wax kii metti na et cetera ngay leen noo dinaa leen defar Mm. département mais loolu ça n'a absolument rien à voir mm. ak solution yi seen communication la yéen woy politique yi yéen koy faral di def en tout cas askan wi euh, soxla nañu leneen lu dul loolu en tout cas ñu ñëwaat ci beneen ponk euh, président Thierno Bocoum wax ci wàllug euh, dialogue bi sànq opposition bi Fatou am na lu mu ci jotu junju ci seenuk nekkin ak seenu seenuk tolluwaay ak taxawaay ci mim réew waaye dialogue politique bi ban lecture nga ci def yow ba ñu koy déroulé boobu ba léegi ak ponk bi soxal ñëpp xam élection locale yi daan ko amalam déet en tout cas euh, mairie yi moom euh, ca jamono jooju seeni i euh, jeex na. waaw xam nga dialogue dialogue bi ñun dañu bokk ci ñoo xamante ne ne xeex yi ñu mës xeex yépp mm-hmm. pour que président Macky Sall mu bañ def forcing mm-hmm. dañ see bokk mm-hmm. jàpp nañu ci plusieurs fois y compris parrainage bi nga xamante ne ne moom moo mujjee am bras de fer boobu benn moment ku nekk si am coono. te indiwul résultat lu dul force beneen bi ñun dañu yàgg wax lii baaxul. lii leerul fichier bi baaxul. nu ñu organiser élection baaxul. am point yoo xamante dañ ko yàgg di jàmmat. donc le fait ñu mën a am occasion toog waxtaan pour am ay consensus ci ay point dama koy rafetlu. parce que sur vingt sept points vingt cinq yi am nañ ci consensus mais luñ si am war nañ jël luñ ci amul war nañ ko jëli et pour man aujourd'hui li am solo mooy opposition bi en tout cas dans sa grande majorité mm-hmm. euh, peut-être excepté le le le PDS ñu ngi woon ci commission politique bu dialogue national bi donc tey résultat yi ñu ciy dégg doon résultat yoo xam ne si encourageant alors dañuy dégg des fois euh, opposition bi surtout ñuy wax ni fichier bi baaxul te euh, gis nañu ni fichier bi ci la Abdou Diouf ñàkkee ay élection ci la Wade ñàkkee ay élection euh, loolu sax ñeen ñu bokk ci majorité bi loolu lañu brandir comme arme que ni fichier bi dara nekku si boo mais xam nga fichier bi ku ñëw laal président Macky Sall laal na ko bu baax sax laal na fichier bi bu baax a baax loolu ñëpp xam nañ ko moo tax ma ne la loolu dañ ko war a xool bu baax a baax parce que gis nga démocratie dara dara. Macky Sall da ko laal maanaam. parce que dégg nañu ma daaneel foofu rek. voilà démocratie amul dara loo xamante ne ne. war na mun a empêcher l' expression populaire mu jël la dessus surtout. et ça c' est important mais vas waaw yaa ngi koy wax rek euh, mooy dag ma xaw a dog quoi parce que amul benn problème <laughs> en fait euh, comme li ma la wax sànq rek ni la fichier bi euh, président Diouf ñàkk na ci ay élection ñàkk ci ay élection président Macky Sall bi mu ñëwee am na lu mu ci laal mais tey nan ngeen di def tamit saytu bi nga xamante ne ni Union européenne tamit defoon na ko ngir wax ni fichier bi c'est fiable à plus de quatre-vingt-dix pour cent waaw xam nga fichier boom fiable naag fiable nañ ko xoolaat nañ ko gëstuwaat warul indi xulu waru indi jàppante su dee ñëpp transparence lañ bëgg mu am audit indépendant nga xamante ne ne nit ñi dañuy ñëw saytu ko xool ko xam lu si nekk man je pense que loolu du problème donc pour man li am solo mooy nit ñi xam ne ne euh, lépp lu ñu yëkkati ne loolu d'accord ñu si wala am na lënt-lënt war nañ ko teg sur la table ñu saytu ko xool ko parce que il va de la démocratie tey fichier bu baax ak bu bon euh, ñëpp la war a intéressé parce que population yi surtout parce que parfois le plus souvent dañuy wax politique yi euh, affaire yooyu moo leen di intéressé mais loolu population yi la gën a intéressé yéen ñii tey soo leen bëggee fal nit wala folli nit gars yi jaxase carte gi ba su ngeen bëgg du am su boobaa dañuy tooñ askan bi donc askan bi dañ ko war a defal lu leer naa nañ ay mécanismes yu leer yi nga xamante ne ne su ñëwee rek lu mu bëgg moom muy décision am day appliqué wu. alors honorable dañuy faral di wax ne lu fa jógee euh, ci dialogue politique bi le chef de l'état bu mooy am le dernier mot puisque daf leen wax ne dem leen waxtaani li ngeen ànd ñu tënku ci li ngeen àndul ngeen indi ko ci man ñu xool euh, naka la ñu koy jëfee est-ce que tey opposition bi su fekkee ne li ñu gis tey une opposition divisée éclatée puisque ñenn ñi ñi ngi wax ne am na. luy dox ci seen diggante ak le président Macky neen ci seen biir am na benn xëccoo bu nekk ci seen diggante est-ce que ñooñu mën nañu jàkkaarloo ak majorité bu fekkee jël nañ décision yi leen neex ci dialogue politique bi. waaw xam nga président de la république buy def arbitrage man loolu dama ko mës a dàq personnellement parce que on peut pas être juge et parti le président a de représentant si dialogue bi. Hmm. am na pôle boo xam ne pôle majorité bi la. kam moo moo ko donc man loolu dama ko mës a dàq mais encore une fois li ma jàpp man rek te mu am solo mooy lu ñu am si acquis si consensus rek nañu téye mais lépp loo xamante ne opposition bi gis na ne war na ko xeex même su dee président moo arbitré dañ ko war a xeex parce que nag euh, moom